ak ñi nga xam ni dañuy ñun Séné Sénégalais dañuy faral di leen topp joueurs yi lutteurs yi businessman yi musiciens yi artistes yi ñi nga xam ni dañoo waroon mun a doon constituer messenu révolution bi c'est-à-dire financer la révolution des idées ñooñu dañoo toog di seetaan ana joueurs yi topp cette révolution des idées di ko financer person Sadio Mané sax moo ci def ay lenn moo ci def vraiment ay pas parce que tabax na école tabax na hôpital ba tey loolu baax na yeneen joueurs yi. ay eh, ñoom dem Ba ñi ngi ñi ngi jàppale gi euh, Kémi ba mais war nañ mën a jàppale ñoom Guy Marius Sagna war nañ mën a jàppale ñoom Karim war nañ mën a jàppale ñeneen ak ñeneen xeex bi ñu ci ne bëri nañ malgré que dañoo wéet ci xeex bi ñi ngeen topp yéen fonk leen di leen jox seen xaalis ñooñu yéen boo leen soxlaa yéen doo leen leen gis mus ngeen am lu ngeen di xeex gis joueurs yi ñoom ñëpp taxaw est-ce que mus ngeen am yéen lu ngeen di xeex Sénégal muy courant muy ndox muy gaz muy muy zircon ngeen gis El Hadj bu taxaw ci combat bi ngeen gis Sadio Mané euh, Fadiga bu taxaw ci combat bi ngeen gis Aliou Cissé bu taxaw ci combat bi mës ngeen gis xeex vrai bu Sénégal yëpp askan wi yëpp di jooy manqué ndox di jooy fajum hôpital di jooy agression di jooy mal gouvernance ngeen gis ci seen combat bi ay lutteur ay mbër ngeen gis fa Balla Gaye bu taxaw wala Modou bu taxaw wala Gris Bordeaux bu taxaw mus ngeen ko gis ñooñu buñ soxlaa ngeen dem toppal leen te yéen askan wi boo leen soxlaa yéen askan wi dans son ensemble boo leen ñoom duñ ñëw ñoom luñ am ngeen demal leen ko yuuxul leen tàccul leen bégal leen yéen li ngeen di jooy ñoom duñ mus a teg tànk combat du am ba nga gis joueur bu taxaw combat du am ba nga gis lutteur bu taxaw te combat wu Sénégal la laa lor pour sauver la Sénégal révendication yi ca pour tout le Sénégal combat du taxaw ba nga gis businessman yi ñëw taxaw di financer combat du taxaw ba nga gis musiciens yi muy muy mbalaxmaan yi walla ja jazzman yi wala rock and roll yeeg yooyu <laughs> yu taxaw mës ngeen gis loolu wala même buñ taxawul sax ñuy financer combat bi on les appelle les mécènes de la révolution des idées ñëw di indi ay idées wala ñi journalistes yi ñëw taxaw pap relayer am na journalistes yi ñëw di taxaw sax ñoom ñenn ñi dañuy ñëw taxaw relayer l'information partager ko orienter débat bi mais combat bi ma lay wax nii mus ngeen gis intellectuels yi ñoo taxaw intellectuels yi maanaam élite des intellectuels ñi nga xam ni seen xel yi dañoo màcc ci ay révolution dañoo màcc ci lut dañoo màcc ci vindicte màcc ci leen ñu ñëw taxaw di joxe ay ay idées muy une révolution des idées naan noonu non defee leen ko nii non lii stratégie la bàyyi leen lii deuxième euh, semaine prochaine de doxee leen nii est-ce que mus ngeen koo gis. donc combat boo xam ni yéen ña ngeen dàq yëpp topp leen fonk leen def leen ay nawle di di leen tàccu def leen ay référence def leen ay idole def leen ay symbole kenn kenn kenn kenn du jàpp ci du mës a metti jàpp ci yéen du joueur du lutteur du mus du businessman du musicien du intellectuel kenn du jàpp ci combat bu Sénégal soxla ndeysaan dafa yërëmtalu nag dafa yërëmtalu boo taxawee di xool situation yi wallahi bu dul yàlla boo amul tuuti ngëm-ngëm ci yàlla rek da ngay bàyyi parce que da ngay naan est-ce que ce pays est sauvable te ñii nag la pays bi choisir boo dee lutteur ñoom ñëpp bëgg la boo dee joueur ñoom ñëpp bëgg la boo dee businessman ñoom ñëpp bëgg la chanteur ñoom ñëpp bëgg la boo dee intellect ñoom ñëpp bëgg la mais xoolal amul kenn kenn kenn koo xam ni yéen a ngi koy jàppal bu combat bi soxlaa mu ci war a gis boppam déjà war ci yëg boppam avant ngeen koy woo mu ñëw waaye même boo leen ko wowoon du ñëw te xam lan moo ci gën a garaaw les musiciens chantent la galère la misère la gouvernance mais dañuy wëlbatiku ànd ak ñi ñi leen ko ko ñi ko créé loolu mu neex mais contradiction boobu moo neex Sénégal yow da ngay tàccul Balla Gaye te Balla Gaye bu mu ñëwee wii ou non dafa ànd ak Macky Sall da ngay tàccu bëgg Balla Gaye di xeex ngar ngir Balla gay di xuloo ngir Balla Gaye waaye Balla Gaye bu mu desee ngir mbirum courant nga koy xeex mosul teg tànk foofu yow da ngay xuloo ngir Modou di rayante ngir mooduloo di xeex ngir Modou di dóori teg ko ngir Modou waaye Modou xeex mosul am mu taxaw sa wet élection yi bu mu jotee Modou Lo dafa dem ànd euh, euh, ki nekk parcelle waa APR bu nekk parcelle yéeg ci otom ànd ak moom di di di wër dëkk bi nan leen voté leen APR oui ou non voté voté leen ni oui élection présidentielle yi pareil waa mais man Sénégal ñun nañ waxante dëgg ñun lan lañ bëgg exactement lan lan lañ bëgg lan lan lañ bëgg quoi le beurre et l'argent du beurre ñii nag ngeen di topp te pourtant ñii ak ñoo am doole saa yu peuple bi taxawee di réclamer dara duñ ñëw te peuple bi saa yu waree xeex nekk di affronter état bi ñu dem ànd ak état bi saa yu peuple bi soxlaa abonné absent ñu def abonné absent waaye saa yu peuple bi di affronter gouvernement bi ñi leen teg fitna yi macha allah <laughs> ndeysaan ñu dem ànd ak gouvernement bi te bu subaa nag sénégalais gën leen bëgg na gën leen topp gën leen <laughs> moo tax boo xoolee chaque jour ma won leen benn point bi wan ni réew mi jógul pour jógul sax pour jóg jógul pour jóg xam nga nit day tëdd nga am envie jóg da ngay jóg pour jóg da ngay jóg maanaam am envie wala am bëgg-bëgg bi pour jóg Sénégal jógul sax pour jóg chaque jour ma def benn laay wan leen benn point frein boo xam ne benn frain bu garaaw boo xam ne mooy waral ñun duñ dem da leen bàyyi xel lool ci saa yi may def live indi benn frain bu xam ni moo waral suñu ñàkk développement indi naa ne culture par rapport ak langue indi naa leneen ak leneen ba lii wax naa leen lan mooy frain bi frein bi lii kese la ña ngeen topp ña ngeen fonk ña ngeen gëm ña ngeen di dàqe ñi leen jaral xeex jaral leen jooy jaral leen dox daw ci tali bi ci naaj bu tàng bi ñooñu musu leen soxla ñu taxaw ñooñu musu leen soxla ñu wan leen ni rek am na luñ leen bëggee moo tax réew mi képp ku ci jóg pour xeex wallahi pour senegal la mais du pour sénégalais yi parce que ko pour Sénégal la du sénégalais yi kese de yu fi nekk kese de ñoom ñëpp dinañ dee ñeneen dinañ ñëw ak ñeneen ak ñeneen ñoom Mamadou Dia ngeen doon dégg anañu ñoom seexanta ngeen doon dégg anañu ñoom Blondin Diop ngeen doon dégg anañu waa PA yi ngeen doon Mahmoud Diop ngeen doon dégg anañu tey ñun ñoo fi ne suba ñeneen ñoo fi ne kuy xeex ñeneen ñee ngay xeexal parce que tey jii bu nu ñoom Serigne Touba xeexalul woon ñoom El Hadj ñoom Limaamu Laay ñoom Baay Ñas cetera ak ceddo yi suñu maam ya combattants ya les anciens combattants et cetera et cetera ñun tey duñu am jàmm jooju kon ba léegi ñu ngi takk buum di ñu yóbbu léegi buum ba takkatul tànk ak loxo ak bopp léegi xel ma la jàpp buum ba dañ koo rocci tànk ba libre loxo ya libre ñu lonk ko ci biir xel bi mooy des chaînes invisibles di xëcc black people di ko jëmale fu leen neex bu njëkk ba télé yi amuñu woon commande da nga doon ñëw di bés bouton yi léegi soxla télé yi amatul bouton télé yi amatul bouton fee ngay yor commande bi naan takk muy dem des fois nga yor commande sax wax ne RTS rek mu génn la RTS TFM loolu mooy développement tubaab bi nu mu développé ci technologie noonu la développé sax ci colonisation noonu la développé sax ci moomeel nangu nit na jël nit jënd ko nangu ko ba léegi mi am njaayum jaam bi ba léegi mi ngi am mais léegi nekkatul analogique léegi ay digital la léegi nekkatul analogique mais numérique la léegi njaayum jaam bi c'est numérisé c'est pas analogique dañ ko numériser léegi ci ay rayon la ci ay rayon waaw jàpp nit bi travailler bopp bi ba mu nekk un noir masque blanc africain noir masque blanc lépp lu rafet mu ne tubaab bi la waaw nga solu ba sangu ba sol set solu mu ne la ak moo tubaabe ak tubaabe dafa tubaabe yow foo jëm yow kii di dafa tubaabe mus ngeen gis ko sangu ba set solu ba jekk génn ñu ne kii dafa dafa noir kii dafa noire quoi dafa noire dafa blacké yeah is black mus ngeen ko dégg koo leen gis mu sangu ba set solu ba jekk di dox di di di dox ñu ne dafa tubaabe dafa tubaabe nag bu si dafa silwiise dafa tubaabe gars yi numériser nañ seen affaire yi de numériser nañ ko yee l'esclavage mental mental slavery lu Bob Marley doon wax donc suñu révolution des idées bi gars yi jàppuñu ci et pourtant boo xoolee am na ñoo xam ne ñoo ñoo war a nekk yaakaar bi te boo xoolee dans toutes les révolutions du monde les étudiants ont joué un rôle prépondérant